commune bi mm. euh, euh, lan lan lan nga def loo xamante ni tey mën nañu ne euh, ci sa magistère lay man nag li ma def ci sama magistère bëri na parce que boo xoolee je dem ma dem par domaine exemple boo demee si wàllum éducation mm-hmm. man bi ma ñëwee dama fekk ñaari CM au niveau au niveau de cette de cette commune ñaari CM yooyu noonu bu xasee ba élèves yi am seen BFEM mm-hmm. pour ñu jàll dem Medina Wandifa wala Bunkiling c'est tout à fait un problème donc des fois da ngay gis ay abandon ñeneen nii di am ay problème tuteur ma ñëw avec le ministre sortant ma waxtaan ak moom boobu may ma benn lycée au niveau de la commune ma ñëw indi ko pour élèves ba ñu génn dem ma dem aussi au niveau lycée baa ngi foofu ma dem au niveau de la Turquie ma signé fa convention des étudiants pour ñu mën a dem jàngi yokku seen xam-xam au niveau de cette de cette de cette université là. Mhm. aussi ma am beneen école boo xamante ni il est à ma dem signé ak ñoom ay bourse sans euh, bourse yoo xamante ne c'est pour les étudiants koo xamante ne amoo kattan amoo doole pour dem jàngi au niveau de la Turquie nga mun a ñëw des au niveau du Sénégal nga continuer say formation nga am bourse am bourse parce que jàng bi baax na mais aussi il faut nga am formation nga am beneen domaine boo xamante ne da nga fiy spécialisé wu mu ñu am ay village yoo xamante ne ni dañoo soxla école bëgguñu euh, amuñu école ma dem au niveau de l'IEF ma ne ko dama bëgg a créer ay écoles yu bees mhm. mu ne ma non actuellement le Sénégal euh, gouvernement bi dafa bañ abri provisoire tey soo buggee école yu bees da ngay tabax ba pare nga wax ma ma affecté la enseignant ma daal di créer ñaari classe mais teewul ba tey comme demande bi dafa bëri mhm. te domaine yi nga war a laal dafa bëri ci financement wu kan ah financement wu kan non c'est la mairie. ah d'accord c'est la mairie. mairie bi moom mairie bi moo ko tabax. Ah. mooy ñaari classe mhm. ñaari classe yooyu noonu bi ñu bi ñu bi ñu ko tabaxee ba pare dellu naa si yëf ma wax ko mais daf ma ne euh, am amaguñu d'abord ay enseignants parce que Sénégal dañoo confronté ay déficit d'enseignants parce que ñun da ngay gis benn école. Mhm. dans notre secteur boo xamante ne quatre classes la. te benn enseignant moo fay moo fay moo moo fay jàngale. nga gis le CICP mu def multigrade. en tout cas quatre classes benn enseignant quatre classes benn ah même dans ma commune am na quatre classes benn enseignant. enseignant bi mooy def ronde bi ci quatre classes. dafay boole CICP bi ci benn classe boole C1 CD bi exemple ci benn classe. bu joxee fii benn 30 minutes. ñëw ci classe bi mais bu ko signalé wu bu ko signalé wu leen ko. no si signalé naa ko mais def ma ne ñoom. mënuñ ci dara parce que ñoom il faut ñu jox leen ay enseignants ñu muñ ko affecté. mais loolu c'est pas normal hein? ah mais c'est ça c'est, ce n'est pas ce n'est pas notre faute. doy ci domaine de. ci éducation bi te aussi même ci kaw loolu. Mhm. dama ci jël ñaari enseignants ñoo xamante ne ñu man maa leen jël en charge man su ma fayee ko si sama salaire man ma fay leen. pour ñu jàngal xale ñu jàngal xale yi ci ñaari dëkk parce que dëkk yooyu dañoo euh, war a am école. Mhm. dëkk yi xale yi bari ci dëkk bi di tàmbaambaalu defuñu dara te parents yi amuñu moyen ñaari VPP mooy des des volontaires payés par la population. Mhm. ma ñëw euh, di leen fay par fin du mois ci ñaari écoles yooyu noonu. mu am ci yeneen ci sama salaire mu am ci yeneen trois écoles. mais loolu c'est pas mhm. mais c'est pour aider la population. mais tamit da interpeller ñu nga xamante ne ñoom. mais xam nga xam nga bu bu ko jaree sax nga bind le président wala. mais xam nga cible baa ngi fii ñoom mënuñu xaar xale yi mënuñu taxaw di xaar. il faut nga am beneen solution yaa ngi koy def depuis combien de temps. depuis trois depuis trois ans. bien sûr nga nekk foofu noonu am na yoo xamante ne. amuñu enseignant euh, dañuy valser si si classe. te ce n'est pas la seule ce mooy bi ma lay wax. Mhm. ce n'est da ngay gis benn benn benn euh, comment dirais benn six classes. Mhm. trois enseignants nga gis benn quatre classes deux enseignants. léegi loolu ci côté éducation la. Mhm. Euh, bi ma ñëwee. trois postes de santé laa fa fekk. trois postes. trois de santé. ak benn case de santé bu fonctionnel mhm. ma tabax beneen case de santé mhm. ñu dem ma gis ni comme c'est population boo xamante ne ni euh, amuñu amuñu doole mhm. te dafa am benn programme bi état tëral mooy le CMI couverture maladie universelle te bi ma ñëwee commune Bogal moo nekkoon ndaare dans le département ma daal di renouveler le bureau ma jël benn équipe outillé leen ma envoyé leen dans tous les villages ñu def recensement dans tous les villages la commune de la commune képp koo xamante ne nii euh, tu es enceinte ba keroog ngay wàcc. Mhm. da ngay faju gratuitement. te doo fay te doo fay. loolu am na solo. bu fekkente ne xale bu am 0 ba 5 ans. Mhm. doo fay bu fekkente ne mag bu am plus de 60 ans doo fay. aussi ma dem indi leen benn appareil yi parce que ñun jigéen yu bëri dañ doon ñàkk seen bakkan ci période d' accouchement nga gis ku jóge boggal dem bu Sédhiou presque plus de 50. kilomètres. ñu war laa opérer nga dem si kii. te des fois pour ñu def aussi ay échographie Sédhiou la ñuy dem wala Bounkiling ma dem indi leen benn appareil bu dernière génération boo xam ne day couvrir arrondissement Bogal bi yépp ce n'est pas simplement pour la commune de Bogal. très bien vois ma dem indi ko te aussi chaque année. Mhm. dama leen di appuyer si wàllum euh, médicament tous les trois postes. aussi ma tabaxat ma tabaxal benn hôpital bi benn poste de santé bi mooy euh, logement ICP parce que bi ma ñëwee ICP si biir dëkk bi lañ doon fanaan. Mhm. bu amee malade si guddi dañuy dem ba ci biir dëkk bi yee ko mu soog a jóg ñëw si post bi. Hmm. soog a mën a gis kii bi tu vois. loolu ma xam ne loolu warul mën a nekk ma tabaxal leen benn logement. au à l'enceinte voilà de de de de. waa de l'hôpital aussi euh, ma tabaxal euh, mur de clôture mooy poste de santé bu Ndiolofène boobu tamit ma tabaxal ko. tu vois loolu nekk na benn domaine si wàllum si wàllum santé bi tu vois euh,